waaw xam nga immigration defe naa ne waxtaanee ko dina am solo parce que du loo xamante ne lu bees la xëy na anam bi nga xam ne moom lañ koy defee ci jamono yi moo bees mais immigration depuis dix-neuvième siècle ba léegi mu ngi am mais ni mu daan amee mooy dafa nekk dëkk yoo xam ne dañ daan nekk en construction maanaam dëkk yoo xam ne dañu nekk di tabax seen dëkk nit ñi jóge yeneen dëkk dem jéggaani fa pour liggéey réew moom li ñu seetlu nag ci suñu jamono ji mooy xale yi léegi dañuy dem di jaar ci yoon yoo xam ne yoon yu métti la yoon yoo xam ne mucc bi bëriwul yoon yoo xam ne faat bakkan yi ci nekk tamit bëri na te pour waxtaanee ko defe naa foog nga jël en considération aspect yu bëri. Mhm. parce que nit ñi li leen tax di jóge ci seen dëkk dem ci beneen dëkk ñaare économique lay doon wala mu nekk des raisons politiques wala mu nekk ay raisons sanitaires wala mu nekk ay raisons familiales su fekkente ni loolu rek laa ci mën a mën a mën a lim. Mhm. donc boo jëlee ñeenti aspects yooyu yëpp ma wax ni fii léegi donc bu ci nekk rek laaj na taxaw seetlu parce que raisons yi ci nekk yi may ci mu ngi ci donc raison santé léeg nit dina jóge ci dëkk dem dëkk pour faju parce que li nga xam ne moo ko dal ci feebar dëkk bi mu dëkk mënu ko fa fajoo mu dem faju ko beneen dëkk raison économique bi tamit léeg-léeg di nga nekk ci sa dëkk sa dëkk nekk ci jafe-jafe nga jóge fa wala sa famille nekk ci jafe-jafe nga bëgg leen dimbali nga jóge fa dem gàddaay dem ci beneen dëkk pour jëlee fa as tuut ñëw mën a dimbali dimbali sa njaboot. Mm. bu dee aspect politique nag léeg nit gis nañu ay nit ñu xoqatal leen ci wàllum politique. ñu jóge seen dëkk dem beneen dëkk daw laaxu fa ba situation bi apaisé wala ba situation bi daal ñu mën a ñibbisi seen réew li ñu seetlu nag ñun suñu réew mi fi mu nekk nii mooy ay ndaw ñooy jóge ci réew mi di dem bitim réew ci ay yoon yoo anam yoo xam ne daanaka yoon yu métti la yoon yoo xam ne la dafa incertain. ci raison yi nga avancé ban nga jàpp wala yan nga jàpp que ne moo concerné sunu jeunesse bi. waaw man dama jàpp ne mënuñoo wax ne benn raison rek la parce que boo waxee ne benn raison la rek da ngay exclure maanaam yeneen yi nga xam ne. parce que cas par cas nga koy jëlee. ñëpp mënuñ bokk ay motif yi nga xam ne mooy tax ñu dem. parce que ñii am nañ lu leen naqari ci réew mi wala gisatuñ seen bopp ci réew mi ba tax ñu jël yoon bu mel noonu gàddaay tuddee woon nañ ko fi sax atam Barça wala Barsaax. Mm-hmm. xam nga kon ku tollu foofu mooy wane ni yow daanaka sa sa sa yaakaar ci réew mi daanaka jeex na. parce que boo demee bay tëkkale sa dund ak dee mooy yow li nga xam ne moo nekk ci réew mi daf la naqari bëri na te daanaka sa yaakaar tamit ci réew mi jeex na nguur gi ñu gis nii mu nekk fi en place dafa am lu mu diggoon ndaw ñi te loolu maanaam soppi seen dundin daf ci bokkoon. te defe naa ku ñu fal 2012 ba 2021 nga génn parce que ndaw yi génn nañ wane seen naxar ci dëkk bi nga génn ne ndaw yi dégg naa leen. je vous ai waaw je vous ai compris donc ça veut dire que yow temps bi nga xamante ne nii moom nga jël soxla pour pour dégl ndaw ñi temps boobu dafa bëri loolu mooy benn ñaareel bi. ci réew moo xam ne daanaka soixante quinze pour cent yi nga xam ne ñooy ci askan bi am nañu moins de trente cinq ans. Mm-hmm. defe naa ni réew moomu ndaw ñi waruñ xaar ba presque dix ans de mandat nga soog leen di leen dégg wala neuf ans de mandat. nga soog leen dégg il n'est pas resté les bras ci dix ans yooyu déjà premier euh, pas premier septennat bi. nee na am na un bilan de presque cinq cent mille emplois créés quinquennat bii nii digge woon na un million d' emplois xëy na dina compliqué euh, réaliser ko voilà mais je veux dire que am na ay programme yu ñu yoo xam ne euh, pour dimbali ndaw ñi la xam nga réew mi slogan yoru ko parce que toog xool ne damay def cinq cent mille emplois bi ministre de la jeunesse ñëwee bi li ñu njëkk wax mooy réew mi amul formation te def naa ñoom information yi mel noonu waroon nañ ko am avant ñoo ñoo jël réew mi wala mm. avant ñu ñoo dig ne danañ jox cinq cent mille parce que boo xoolee politique yi yi nga xamante ni mooy politique de jeunesse yi yëpp. yu ci mm-hmm. ëpp ci wàllum formation professionnelle la. Mm-hmm. su ma ci jëlee benn rek bu mel ni réussir au Sénégal nga xam ni programme boo xam ne la Allemagne ak Pays-Bas ñoo ko financé pratiquement à hauteur de trente trois trente et un millions d' euros maanaam lu tolloog ci vingt milliards. programme boobu yëpp li mu ci li mu accès wu parce que ministère de la formation professionnelle ñoom ñoo koy ñoo koy doxal. Mm-hmm. donc loolu wu yëpp ci mbirum formation la donc formation xale formation professionnelle. ak pour réinsertion te programme bu toll noonu am lu tolloog ci vingt milliards pratiquement impact bi boo xoolee de parce que de deux mille vingt et un boobu mooy deuxième phase bi deux deux mille vingt cinq mhm. phase boobu yëpp li mu impacté en terme de de population wala en terme de jeunes weesu wuñ vingt mille personnes ci formation te loolu du samay ay chiffres mhm. ñoom ñoo joxe chiffres la demande est beaucoup plus forte waaw la demande est beaucoup non plus forte mais tamit ni ak ni ñuy doxalee am-am bi nga xam ne moom la suñu réew mi am mooy nekk ci gafakat bi. Mhm. loolu dañ ko war a gën a ñoŋal dañ ko war a gën a xool parce que réew moo xam ne ñu ngi jóge ci Covid ñu ne Covid bi daanaka am na ay malversation wala am na ay mauvaise gestion xam ne am na mhm. ci. daanaka ba léegi ñuy wax ak nii nii nii France daal di xëddeem. amul benn amul benn benn poursuite bu ñu ci am mhm. wala amul kenn koo xam ne bokk na ci nguur gi ñu jàpp la tëj. te parallèlement ñu ngi xoolaat tamit gis ne bu fekkente ne opposition bi la loo def lu mu ndaw balaa jant bee soo yow caabi féete la ginnaaw donc yooyu yëpp dafay nekk ay aspects yoo xam ne ay naxar la yoo xam ni dafa nekk di dal xale yi di dal mag ñi di dal waa réew mi. Mm-hmm. ba day tax tey jii di nga comprendre ñi nga xamante ne nii mooy ñiy jël gaal yi di génn di dem donc loolu ci benn aspect la muy aspect politique. Mm-hmm. aspect économique bi ñuy wax parce que réew mi quoi qu'on puisse wax nañ léegi waxum formation mais mbirum chômage pratiquement ëpp na de la population bi nga xam ne mooy population Sénégal te bu ñuy mooy ñi nga xam ne am nañ formation ba pare. Mm-hmm. te ñooñu boo xoolee 17 pour mooy dañ ko man jàpp naa ne sax dañ ko sous-estimer parce que ñi am emploi bu tax ñuy wax emploi dëgg parce que réew mi wax nga ko sànq ci sa ci sa émi début émission. Mm-hmm. réew mi dund gi cher na yëf yi métti na location dund. lépp loo mën a jàpp ci réew mi dafa cher donc emploi précaire pratiquement léegi sax dañu ko war a xoolaat formule bi. Mm-hmm. parce que emploi yu ci bëri daanaka nit mu ngi xëy di gont mais balaa weer a dee. daanaka du mën a. soutenir mm-hmm. gis nañ ni muy doxee réewum dimbalante la. da gis benn famille boo xamante ni daanaka benn nit moo fay nekk di di góorgóorlu ah, ci mbaggam ñeneen ñu bëri bootu ji mm-hmm. te loolu ñun suñu réew mi noonu la bindoo parce que réew mi moo demee noonu te loolu li ko indi mooy ndóol bi nga xamante ni dafa wasaaroo ci réew mi mm-hmm. nekk tamit li nga xamante ni daanaka dafa laal ñu bëree bëri loolu beneen raison la beneen raison bi tamit mooy tey politique bi nga xamante ne nii foofu ñu xale yi daw jëm ñoom ñu ngi fex ñu téye xale yi ci réew mi ba ñuy financer ay projets yoo xamante ni daanaka ay milliards yu dul jeex la te milliards yooyu après daanaka du am benn audi boo xam ne sérieux na buñ ciy def ba ñu mën a xam ne xaalis bi kat nangam la woon. Mhm. lii lañ ci dugal ñii lañ ci formé. ñii ñoo ci bénéficié wu lii moo ci des nangam ak nangam te loolu li muy li li muy li muy firnde rek mooy ni ñuy ni ñu yoree réew mi. parce que réew moo xam ni daanaka yow ñi farak yow lu ñu def dara du leen ci fekk. Mhm. ñi nga xam ne ñooy kujje gi donte bu ñu deful dara sax ñu ñu ñu ñu teg leen ay tuuma dugal leen ci kaso bi fàtte leen fa te du mujj fenn. loolu moo nekk ci